voilà vous êtes une pour un modèle euh, pour modèle pour beaucoup de jeunes mhm. dans la banlieue mm -hmm. est-ce une mission facile mhm. ma la li ma la laaj sànq référence bi nga doon modèle mhm. bi nga doon ndaw banlieue bi euh, est-ce que est-ce que yomb na waaw yomb na lu jafe na nag moom yomb na ah. yomb na xam nga lu tax ah. dañ ma ko defaloon ah. <laughs> dañ ma ko defaloon man balaa may dem euh, Medina Baye wala loolu dafa am sunu grand yu fa nekkoon daan ko def ci côté sport association sport. ASC yi ASC Walidaan moo moomoon suñ ko ñun ñëpp ñun ñëpp yaru nañ ci kër sëriñ waaye ñun dañu amoon grand yu baax yu fa nekkoon assisté ñu boo yëngalee rek ñu ne la bu ñu la yóbboo waaye rek nga di miig ñun moo ñu dimbale ba tuxuñ cigarette ñoo ñu dimbale ba naanuñ sàngara ñu yaroo association yi dem ba léegi lañ waroon def defatuñ ko ci ndaw ñi. ñun nag bi ñu yàlla dimbalee ñu del ci waat suñ koñ ñu uutu grand yi ci loolu mais ci côté religieux. moo tax ma li may def dama ko sentir te dafa ma yomb ndax dañ ma ko defaloon. dañ ma ko defaloon rek waaw ñu tàggat ma ci man tamit ma ñëwaat rek di ci uutu grand yi mais nag ci côté religieux ci buntu tarixa tijaan ci buntu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mais lu yomb la tamit parce que nit ñi difficile luñ koo jege rek da nga naan non man xaw ma woon ne nangam nangam mhm. loolu tamit maa ngi ci ñaan yéen it seen ndimbal muy média bi mhm. ndax benn waaye dama ko wax keroog ne man du ma seetaan dañ ne ma ah bëri wolooy seetaan kii hmm. ma ne ko man man man hmm. man du ma seetaan hmm. sama tele ndax sama télé seetaanuma du ma seetaan sama télé ndax sama télé seetaanuma loolu loolu loolu dinaa ko firi mu gën a yaatu man du ma seetaan sama tele parce que sama télé seetaanuma man du ma toogee ba guddi war a seetaan journal war a seetaan sama programme mu télé waxuñ ci man en tant que jeune bu jàng te amul dara en tant que kuy taxawaalu en tant que en tant que en tant que gisuma benn débat wala benn programme man buy wax ci sama dund en mhm. tant que benn waaju sonn bu nekk amuma yaay awma pappa dégg nga créé wuñ benn condition man pour gunge ma te gisuma ko ci programme mhm. ak assistance bu am ci côté média bi kon man du mm-hmm. ma seetaan sama télé. parce que sama télé ñu ma. du ma seetaan sama télé parce que sama télé seetaanu ma. Mm-hmm. bokk na ci mm-hmm. yooyu yëpp. ay slogan yu may indi naan zéro to héros zéro to héros maanaam ci banlieue bi lañ nekk nañ tabax suñ personnalité ci zéro. ndax ñu mën a doon héros ëllëg. dégg nga parce que buñ ci àggee tamit. dañuy doon l'incontournable. te dañuy jël voie normal duñ jël proxy duñ jël euh, euh, nu ñu ko waxee raccourci. parce que raccourci vide la lay créer ëllëg. da ngay wàccaat. Mhm. waaye Pape Cheikh mhm. kontaan naa. te li may ñaan. Mhm. Euh, ci réew mi. Euh, mooy état bi. nañu mayaat espoir ndaw ñi bañuñ leen. mais boo nee politicien rek ñu ne fenkat yi. nañu changé vision boobu ndaw ñi am ci ñoom. boo nee sëriñ ñu ne bëgg lu yombali. ñoom tamit sëriñ si laay wax. nañu changé. vision bi xale yi am ci ñoom mm-hmm. ndax ndawu Sénégal mu ñu noo dem sans sëriñ si mm-hmm. mënuñoo dem sans état mm-hmm. kon nag ñoom gis-gis gi ndaw yi am ci ñoom nañu changé seeni seeni comportement bu boobaa ndaw ñi delloo leen confiance bi ñu amoon ci ñoom ndax ñun suñuy bàyyi dañu amoon confiance ci sëriñ si amoon confiance ci gouvernement yi passé kon nag ñun dañoo soxla suñu gouvernement dañoo soxla suñuy mag suñuy sëriñ ndax loolu mooy li ëpp ci suñu deret kon ñoom nañ joxaat confiance ñu delloowaat suñu yaakaar ci ñoom loolu laa doon wax pour il faut ñu bàyyi ko xel waaye ñun bañuñ leen xale yi réewuñu dañoo jaaxle xale yi réewuñu dañoo jaaxle léegi nag kon assistance moo des réewuñu dañoo jaaxle dañoo jaaxle kon nañu jegewaat xale yi ci mm-hmm. banlieue bi mm-hmm. waxtaan ak ñoom mm-hmm. dégg nga mun leen créer ay voies yu ñuy jaar pour mën a tekki parce que tekki dafa métti ñàkk a tekki parce que sa yaay ngi nii amul dara sa papa waxi noppi location seer na ci banlieue bi laaj la ay quatre mois te yow benn mois amoo ko loolu état waru ko seetaan dégg nga euh, ceeb beeg diwlin yi seer na état mën nañu dimbali wàññi seen doole ndax créer stabilité mentalement ci nit ñi ndax nit ñi dañoo tiit te tiit baaxul yonentu nee na moytu leen tiit tiit day tax seytaane jël sa xol bi te Pape Cheikh ma wax leen pour tëj. Mhm. su ma gisee xale yi génn ci dëkk bi jàngat bi may am mooy réew mu tàkk guerre civile nit ña seytaane wàcc si ñoom. Mhm. dootuñ doon ka nga xamoon. Mhm. Pape Cheikh gis nga guerre civile bu nee réel ci réew bu ñu yàlla dimbaliwul Aziz ma nga xamoon dootu ko doon seytaane day wàcc si moom. mu doon leneen. bu boobaa ñuy consommer leneen. bu yàggee. règlement de compte la la taxoon ñuy guerre dañ koy fàtte kii a rey sama mag kii a rey sama yaay mhm. kii ma rey suñu waa kër mhm. léegi règlement de compte boobu kenn xamul ban at lay jeex mhm. kon nag nañ xool man de mënuma ci dara waaye maa ngi oote sénégalais yëpp ñu toogaat xool koom-koom gi nar a ñëw pétrole bi dégg nga xaw ma sax man du ma seetaan télé parce que sama dund gi teguma ko ci pétrole ak zircon wax dëgg yàlla man dama am jàmm mhm. dama am jàmm man Pape Cheikh dama am jàmm parce que maa ko créel sama bopp voilà moo tax man xaaruma ay zircon ak yooyu mhm. waaye comme que yàlla indil nañu ko mhm. muy wërsëg te buuru Dubaay ba ba mu amee dafa oo Cheikh Ibrahima Niass ne ko ñaanal ma pétrole baa ngi nii te dañ ko bëgg a ŋàcc waaye ñaanal réew mi ñu bëri ci ñu ëppale si ndax tubaab yaa ngi fi mentalité boobu amoon ak xol ba buur boobu amoon moo yóbbu Dubaay fi mu nekk maa ngi ñaan suñ président tamit mu am yëg-yëg googu xam ne koom-koom gu ñëw ci réew mi la sénégal yee ko bokk na am yërmande na am yërmande woote débat bu yaatu xam ne buñ ko songee mu tuuru sunuy loxo ñëpp jëriñoo ko ñu sànni ñu ci guerre civile boo xamante ne yow doo ci mucc dama ci mucc keneen doo ci mucc yal na yàlla musal ci loolu yal na yàlla yombal lépp bëgg naa ñu waxtaanaat ci leneen li ma bëggoon wax yëpp <laughs> waaw xaju fi mais incha allah danañ am émission bi mais beneen ndax waxtaan wi neex na maa ngi koy wax sànq ba yëgguñu sax ni waxtu waa ngi dem te li des ci programme bi bëri na deux heures quatorze mooy doog a jot mhm. ñu ngi lay gërëm bu baax euh, cheikh bi gërëm tamit euh, mhm. téléspectateurs yëpp mhm. euh, ci biir waxtaan bi ñu ngi fi jot ab xale bu réer mu jógee ci élagement aussi ñu ngi lay ziar bu baax donc euh, vieux ki mu ngi tudd Omar Diagne euh, Omar Diagne Parcelles Assainies la dëkk euh, mu ngi réer depuis plus de vingt jours donc ñu ngi ñaan ku ko gis rek mu woote ci 77 300 94 56 52 donc photo bi la leen di waaje woon bu ko defee bu ngeen ko gisee rek ngeen woo ay bokkam ci numéro de téléphone yi may bi may bëgg a joxe donc foto bi dina leen ko woon nu mu gënee gaaw Euh, balaa ñuy euh, tàggatoo euh, gërëm ñëpp sant ñëpp waaye ndokkeel surtout Baye Ciss waaw ñu bëgg lool lool lool lool ci waxtaan bi mhm. sunu sunu waajur la mhm. moom itam bokk na ci kilifa yi nga xam nga ñaanal Baba Lamine waaw fàttewuñu bàyyiwuñu benn yoon mhm. euh, ndaw ñi euh, ci jéem a créer ay emploi ci jéem a ñoom it euh, teg xeer ci tabaxub dëkk bi donc Baye Ciss ay atani a ngi nii muy dox ci loolu Dakar ba Kaolack donc ñu ngi koy ndokkeel bu baax Euh, di bëgg euh, ci euh, taxawaayam ci nit ñi nga xam ne ni bokk nañ ci jabootam moom Baye Ciss bàyyu Papis ak sunu yeneen i xarit yoo xam ne mhm. ñu ngi bëgg lool Nadoura mhm. mhm. moom mu ngi kontaan ci waxtaan wi nga xamante ni séq ko di nuyu tamit maire Touré yaayu Mamadou Ndiaye moom it mu ngi bëgg lool ci jotaay bi Euh, cheikh bi kontaan nañu loolu. alhamdulilah kontaan nañ kontaan nañ tamit kontaan nañ